Moustapha Sar, maire commune Pout, def le parce que l'école valeur 8 500 en fourniture pour que élève yi mun a am jumtukaay lu ñuy jàngee année bi yépp yaakaar naa loolu action bu baax la parents d'élèves yi danañu noy maître yi danañu contane té élèves yi danañu contane mëna a jàng vraiment mëna def sen liggéey pour ñu am résultat yu gëna baax. 5 écoles yu pour yi def nañu résultat yu baax district pour ñu ngi ci 59,3% donc le pourcentage bu baax la contane nañu sen résultat wante waaw goor baax na rek yaakaar naa aussi waxna len leen waaw. góor maa ngi séentu ñu pousser résultat yi ba soixante dix ou soixante quinze pour cent déwén incha allah. état bi dafay def ay effort ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ay élus locaux état bi effort yooyu muy def population bi war nañ koo sentir te population bi duñ ko sentir tant que loolu ñu nuy jox delloowuñu ko si askan bi xëy na loolu rek moo waral woote bi moo waral leeral bi aussi parce que li jox aussi moomuñu ko. askan bee ko moom état bu ko joxee joxuñu ko askan bi la ko jox donc dafay laaj ñu woote leeral ñu ni kat lii état bi jox muy huit million cinq cent jox nañ ko maire yi waaye maire à travers le maire le conseil municipal taxaw nañu pour delloo ko waat askan bi loolu dafa am solo trop si dénkaane moo taxoon ñu invité inspecteur invité imam yi invité population yi pour ñu mën a témoin que li nu état bi joxoon jox nañ leen ko jox nañu juróomi école ak ñaari maternelle muy juróom-ñaari école jox nañ leen lépp loo xam ne kaye fourniture bépp boo xam daal daan ko soxla si année bi jox nan leen ko lépp lu ñu soxla rek jox nan leen ba mu des livre muy ñoom it maître dafa am lu ñuy soxla lépp loo xam ne aussi dañ koy soxla si njàngale mi si seen euh, matériel boo xam ne dañ koy soxla moom it fexe nanu ba buñ li ñu laajoon muy buñ leen ko joxul cent pour cent aussi jox nañ leen ko quatre-vingt pour cent donc defe naa ni daal am nañu yaakaar ni daanu mën a commencé jàngale mi si xel mu dal ak si loo xam ne wax dëgg yàlla xëy na fitna du bare parce que defe nañ ni li nu waroon a jot si bare bare jot nañ ko. nga saa bu ma ne Pout dafa doon quarante mille habitants day jaaxal nit ñi parce que boo demee si kayit yi nga xam ne moom la état di yore ay vingt huit mille lañ fa def or que on fait quarante mille habitants. moo tax lépp loo xam ne rek defe nañ ni si Pout am na ko si école doyul CM bi dafa ñaar am na fi mais doyul lycée bi benn bi doyul. lolu nak dañuy lancer appel ci li nga xam moy autorité yi pour que vraiment ñu gën ñu see jàppale parce que aussi ñi fi jàngalé ay jambar lañu gis ngeen légui ñu wax ni ki ñu nommé maire enseignant ci région bi nek lycée Pout di doomu Pout défé naa ni loolu am solo donc ñi fi jàngalé jambar lañu mais japp nañ ni nak ni effectivement effectif yi bari na bari bo xam Lordon Don Jambar jàmbaar ak maire bi lu ci japp japp jàpp état bi lu ci japp japp te effectif yi bare aussi japp naa ni boobaa jafe-jafe day am xam nga ñii ma seq ñëpp imam ay imaam lañu wax nañ ko sank bi ñu jëlé parole sen représentant ni bu ñu faté daara yi wax nañu aussi effectivement ki nga xam ni moo yore commission chargée des affaires religieuses mu défal ñu benn expression de besoin da ñu a sét si fan yu néew ñoom it ñu dajalé len woo leen jàppale leen parce que njàngale bu ñu nee jàngale si fànn yépp la